xam ne ñooy député benn bokk yaakaar yi ñoom tim ñu voté daal di voté ñu dindi malaanu kiiraay yu Ousmane Sonko yéen a kaay gi Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu démb assemblée nationale kenn mënu faa jaar ak i takk dara maanaam sécurité bu mat la ñu teg assemblée démb yéen a kaay gi di laas ak le quotidien ak enquête xëy di ñu xibaar naan ñu assemblée nationale jël nañu Ousmane Sonko jébbal nañu ko àttekat bi yéen a kaay gi di laas xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ginnaaw bi ñu dindee malaanu kiiraayam di jàpp ñi nga xam na ñooy ay jege ñaaleema mbir mi nag ma ngi gën di tar di gën di tar ci Ousmane Sonko yéen di Vox Populi maître Malick Sall mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum yoon ci réew mi démb ci assemblée nationale nee na mbir mi nga xam ne moo xew diggante Ousmane Sonko ak xale jigéen bii di Adji Sarr man maître Malick Sall maa ko yëgal njiitu réew mi di président Macky Sall maa ko ko yëgal ca conseil des ministres ba loolu moom maa leen di jox ay garantie yéen a kaay gii dalee se ko xëy ñu xibaar naan ñu njiitul Pastef di Ousmane Sonko yàggatul dara dana dem ca kanamu mu neex ko ak mu naqari ko ndax Ousmane bu ñu ko convoqué bu demul dañu koy jëlee yéen a muy tuulee danañu ko dugal kaso yéen kaay gi nee na procureur sax sàkku na procureur sàkku ci juge bi nga xamante ni moo yor dossier bi ngir nag mu daal di mandat dépôt x mandat dépôt x loolee procureur sàkku na ko ci juge bi nga xamante ni moo yor dossier bi Ousmane Sonko bi yéen kaay gi xëy ñu xibaar naa ñu may mun a jéy mi nga xamante ni moo jiite jigéen ñu passé fii moom ak jigéen ñu bare bari bokk ci parti boobu ni ki démb teg nañu leen loxo enquête yéen kaay nee na jigéen yi ñu teg loxo ni ki démb ci parti Pastef toll nañu fukk ak juróom ñaar am na juróomi étudiant yoo xam ne teg nañu leen loxo yéenekaay gi du source ñu xëy fekk fa professeur Iba Bari Camara wax na ci garde rapprochée yu Ousmane Sonko yi nga xam ne moom la ñuy wax ne dañu doon jàppante ak takk der yi ak force de l'ordre yi ak lan moo leen ci mën a fekk bu dee nag dañu leen a tuumaal lu jëm ci wàllum rébellion wala nag ñu fekk leen yenn xeetu ngàndaay yi yéenekaay gi di laas xëy duñu xibaar naan ñu nag assemblée nationale démb la fa xew doy na waar ndax assemblée dañoo lànk kandaare bi nag maanaam du dugg xam ne nag mooy Bamba na kaay nee na assemblée nationale gi nga xam ne mooy voté loi yi moom ci boppam mooy jalgati loi moom assemblée nationale yéen kaay gi nee na nga xam ne nag mooy député Mame Diarra Fam maanaam Mame Diarra Fam ni ki démb moo sauvé bu Sénégal waaye tamit sauvé droit à l'information yéen gi nee na nga xam ne ñooy taskatu xabaar yi mere lool assemblée nationale ndax nag ñoom assemblée ni ki démb daal dañoo lànk kandaare bañ benn na Guy Marius Sagna ki nga xam ne mooy Assane Diouf ak Clédor Sène ñoom nag altine la ñuy xaar yéene kaay gi délibération mu ñu xamalaan ñu dossier bi Assane Diouf ak Clédor Sène ak Guy Marius Sagna procureur daan na koy criminaliser maanaam jàppee nañu leen ay criminel jàppee leen ñoo xam ne njort nañ na li ñu def crime la yéene kaay gi nee na association de malfaiteurs incitation à la violence maanaam nag lëngoo di def ay ñaawteef ak woote finn organisation de mouvement insurrectionnel loolee la leen di toppee yéene gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Déthié Fall mi yàkk na musiba ak mbelengaan Macky Sall nee na Macky Sall wàllum dictature la bëgg a ci Sénégal ak jaay doole gu mett geeg jàpp gu bëri gi nga xam ne moom la nekk ci réew mi loolee nag wuruñu koo ko yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy séq waxtaanu yaata ak jaamaan groupe express bu jur la xëy na wax lu bari ci yéen a kaay gi di réew mi moom nee na nag jaamaan la ñu koy wowe ñu laaj ko tur bi la nee na tur woowee nee ko turu góor yàlla la maanaam ci Baay Faal gi turam dëgg Abdoulahat Cuun la moom jaamaan di rappeur bi nga xamante ni daal maanaam moo gën a fi nga xam ne moo ci YouTube bi ndax ay millions millions doomu aadama ñoo koy topp ci chaîne YouTube bi wax na ay projet ma wax na département anglais bi nga xam ne moom la nekkoon ca université ak fi am njàngam mi am waxtaan wu yaatu la séq ak réew mi quotidien yéen i kaay gi de la quotidien ak enquête xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci coronavirus bi ak vaccin yi fi nga xam ne nag mooy caajaay xam ngeen ne maître Omar Youm maanaam mooy maire bu caajaay vaccin yi ba ñu fa demee askan wa doon nañu ñàkku waaye nag moom maître Omar Youm dafa lànk kandaare ne